dans le domaine de la pêche bi nga xam ne bii moom ma gën a concerné bu ñu xoolee onze milliards lañ ci def bàyyiwul nappkat bàyyiwul mareyeur bàyyiwul femme transformatrice bàyyiwul ki jënd jën bàyyiwul baara ñini bi bàyyiwul kenn te ñooñu dans le domaine de la pêche ñoom ñoo ñànk l' local locale l' nag dina permettre mu am équilibre social ndaxte ñi fay intervenir yëpp lañ ci gañe ak luñ ci am dañ koy delloo ci askan wi delloo ko ci économie bi delloo ko ci seen dund delloo ko ci seen bien kon c'est l'occasion pour rendre hommage madame Sey mi nga xam ne bii am na benn pàcc ci politique sectorielle bi nga xam ne bii président de la République moom lañu sant pour ñu exécuter ko.